waaw alors suma mbokki Gambien si ak suma am di jaamay ak gaa yi ma déglu yépp man laati Samsudeen Sarr man maa ñëw tey ci Lundi di ñaar fukki fan ak ñaar ci weeri March ci suba si di leen defar audio bi di continuer wax gi ma commencé ci li ma ko tuddee rek ci suma TRRC waaw di leen nettalil man li ma xam ci coup d'état bi 1994 li ko waral ñi ci bokka li xew li ma ci def ak dinaa ko continuer ba liggéey bi ma defal nguur gi ba bi ma jógee ci dëkk bi dem toxu ji Amerika ak suma njaboot naturalize foofu waaw nima ko waxee rek ca njël been waxoon naa leen ne leen nguur la boo xam ne coup d'état la waaw ñun ñooy soldat ya fa nekkoon du ma ko ndamoo parce que coup d'état baaxul waaye itam ne dinaa ne alhamdulilah ne amoon na parce que nguur gi fi nekkoon bañ fi génnee woon dañ ko fi waroon a génne te kenn mu ne ko fi woon a génne suñ coup d'état wutoon waaw uh, moo tax bi mu ne teel ñun ñëpp ñu jaxasoo ñun ñëpp tugal nañ ci suñ loxo suñ mun-mun suñ am-am suñ kattan bañ stabilise système bi ba affaire bi continuer toog fii nag lan ñaar fukki fan ak ñaar ñaar fukki at ak <laughs> ma um, tey nag balaa wax dara sax dama bugg a wax ne um, tey lañ wax ne. mooy ñaar fukki fan ñaar ci maañ ne tey suñ TRRC Gambia bi dina dellu siwaat pour continuer fi ñu yem ci seen investigation bi ma jàppane li ci ëpp yëpp ay fenkat lañ dee ko indi ñu ñëw waat ba pare fen fennal leen fen yu tooy xepp ñu ne ci loolu lañ naa sukkandiku pour génnee dëgg gi li xewoon waaw man nag gis naa ne ñu bari ña faa ñëw ay fen rek lañ dee lay lalal waaye nag soo buggee ne da ngaa génnee dëgg ci fen loolu du sax parce que dama foogoon ne ñu bari suñ àndoon ak seen coobare xuppuñ leen di leen esafal di leen xuppee di leen saaga di leen mel ni ku leen a intimidate you soo buggee soo waxee li li mu bugg nga wax ko. mu reyal la kafal la soo buggee lu nga xam ne soo soo waxee loo xam ne buggu ko mu xuppa la ñaawal la rusloo la ci sa kanami nawle ci télévision mane ko moo tax ñu bari di ñëw di fen parce que ñu bëree ngee avoid loolu <coughs> waaye nag euh, dama ne ñun ñëpp toog nañ dégg ko Essa Faal di wax ne Sénégal seen armed forces ñoo gën a professional armed forces si Gambie bi di ko wax Bojang you know um, uh, lieutenant colonel Bojang di ko di ko jéem di ko kookale parce que joolaa la waaw warut a kaare rank bi kaare di ko ñàkkaloo fayda sa njàng soriwut yooyu yëpp di ko ko wax di ko wane nag yow seen Sénégal seen armed forces ñoo gën a professional suñ armed forces. ba pare suñ suñ suñ suñ muxat bi muy docteur Lamine Cissé moom it ñëw ñun ñëpp dégg nañ ko keroog bi moo wax ne you know euh, parce que 9 avril 2000 xew-xew bi fi amoon you know ne students yi suut nañ loon mooy nekk jamoon nañ leen ay fetal ne ñoo ñooy di force masaka bu bon bu nguur gi APRC bi def AFPRC bi def APRC la woon sax parce que 2000 la woon mu ne loolu ñaawtal nañ ko ba taxaw nañ ne dañ leen a yërëm talu waa li tubaab di wax joo leen eh, ay two minute silence suñ naa fexe yi ñëw ne dañ leen a ñaanal imaam yeeg lifin ku nekk man nag tey yaakaar naa ne suñ nekkul ay naafeexa nekkuñ ñu ruslu dinañ ubbee seen TRRC bi di wane ne masaka bi am Sénégal barka di boo ñaay equal number of it's like xale yi ñu fa rey moo xale yi ñu rey in 2000 more or less same la ne dinañ taxaw ne senegaal seen nguur gi seen nguur gi def nañ rey nañ rey bu ñaaw doomi Sénégal parce que ay bal di ko jox ñoo xam ne ñu ngay def fii peaceful demonstration waraloo koo def you know ñoom dinañ ñëw ñaawlu loolu ñaanal ñooñu suñ imaam yi taral leen faxi lixlaas ak ñaar suñ euh, suñ bisob bi ñëw euh, waxal leen jiisos li wax ci dee ak yooyu ñaanal leen wane ne nguur gi nguur lu bot lañ def waaw te itam nañ fàttaleku ne li senegal seen nguur gi di wax tey ni moom lañoo def ci li xew ne dinañ leen def ci dinañ jox ñi dee ndàmpaay ak ñi gaañu dinañ leen jéem faj ba pare you know li li ñaawteef gi ko def dinañ leen indi ci loi exactly loolu la nguur nguuri APRC bi def in 2000 ñi dee dañ leen jox ndàmpaay bu ñor si seen famille yi Aïssatou Ndiaye Seydi suñ ko intimidé tutoon ñëw ko wan ko ne ko golo nga ñaawal ko rusloo ko ni ko noonu dina leen wax ne moom moo yóbbu woon ndàmpaay yi vice président bi waxuma ministre vice président moo demoon ci famille yi dee jox leen ndàmpaay bu ñor ba pare ñi gaañu dañ leen faj ñee na ñi yóbbu nañ leen Égypte ñi tooki fu nekk nañ leen yóbbu pour faj leen waaw te ñëpp seen xol dafa daloon waaw biñ demee na koot jox nañ indem indemnify nañ you know security um, noonu la nguur dee def nguur dafa sutura yu noonu nitam su defee ñaawteef parce que soo ne da nga sa sa sa security forces suñ jëlee suñ defee loo xam ne ñaaw teef la duñ ko dee tey nag kenn kuy jóg ne maa ngaa rey maa ngaa kaañi maa ngaa lifin ah, diggante moo la dee def loolu waaye soo ne sa security forces si danga leen a yónni nekk ci diggante ñu jël ak action boo xam ne ñoom sax dañ koo rëccu nga ne nag ñooñu dañ leen panis danga leen a nasaxal danga leen a nasaxal waaw te loolu la nguur gi def dañ dem indemnifier gaay pour sutura leen Amérique dañ koo def France dañ koo def Angleterre dañ koo def sutura seen security forces si suñ defee ñaawteef you know yoo xam ne xam nañ ne tey teyuñ ko you know especially su nekkee groupe su dee kenn kenn la sax mun nga leen a waaye su nekkee groupe ñu def ci opération boo xam ne dañ ne wax national security la dang leen a waaw waaye nag ñëw nañ ñaawal loolu ci nguur jaame ne lii la fi def jaame nit ku bon ki moo joxe order bi tey na ngeen ñu wax ne Macky Sall moo joxe order bi mooy nit ku bon ki moo indi security forces ci mbedd bi ñu fetal ay ay ay xale yoo xam ne di old days ñu ne 20 years la am. su yaakaar naa ne tey londi ji suñ sàmba yi naan ay atekat lañ attekat yi dëgga ne ñëw ñu jooy yëfi Sénégal nañ jooyee affaire yi Gambia suñ ko defoon kool nañ leen ooy ay neef fexa ay ay ay ñoo xam ne you xeet yëpp dañ leen war a xam ne nit ñu lañ waaw loolu naa ko wax balaa maa wax waaw euh, suñ ko waxul nag buñ ñu waxati fenn affaire yi ne april 2000 jaame dafa ñëw joxe oora ñu masaka gambien si be ñoo di jooy jooy jooy naa fexa ne dañoo ñaan ñaani naa fexa ne dañoo yërëmtalu yërëmtu naa fexa te ba moo am ñu bëree ngi ci dëkk bi ñoom ñëpp ñu ngi ci dëkk bi ñoom ñëpp ñuy wax ne kenn bu sa taxawal kàddoom ne kaa leen ma ne kaa leen ma wax leen ne waaw li gars yi def nii dëgg la duñ dëgg duñ dëgg imaam yeeg ay bishop bi ngaa gis ni jooji si le nga naka council member si le naka ye ye commissioner member si le ñëpp a ngi woon si dëkk bi te luus ne waxuñ ci dara rafetlu ko sax waaw so ah, man yëfi naa feexa yooyu dan ngeen war a bàyyi naa feexa baaxul te TRRC soo ko buggee truth nga ne truth mooy dëgga réconcilier soo jubali dëkk bi ngeni loolu ngeen jublu waaye ci commission bi waay déggu leen waay déggu leen loolu kuy déggu dangaa déggu doo déggu ne samba dama déggu ci moom paate ñëw duma déggu ci moom paate ñëw ma ne dama déggu loolu ñu loolu looloy naa feex waaye loolu xaaral ma émalé ko foofu ci li ma wattee yaakaar ne tey su gaa yi ñu waxtee seen commission euh, euh, lal seen ñaan yi tari julli ci yónneen bee julli ci ba pare dinañ wax lu bon li am Sénégal ne Macky Sall la moo ko def moo fetal xale yi aba ah juróom ñaata fukk ak juróom benni xale lañ fa rey ma ñoo leen rey fetal lañ leen fetalee loolu liñ doon xasee yaay ja ñu ko ne def nañ ko Sénégal waaye def nañ ko you know su Macky Sall li wax loolu la si ay ja def ba pare nañ xam ne nag nasaxal nañ parce que seen naat fi xëy yi def nañ ko nasaxal nañ sécurité forces yi ci dëkk bi ba nga xam ne you gis ngeen sécurité bi fa mu jëm everyday mu gën a naxari everyday mu gën a ñaaw everyday nit ñaa ngi ragal ci dëkk bi parce que sécurité forces yi ñeme ñuñ leen yéen yéen a leen xuppa yéen leen nasaxal yéen a leen jaaxal yéen a leen tiital ne liggéey bi ñu daan def dafa bon dafa ñaaw waruñ koo mus a def waaw loolu loolu moo ñu toppa waaw loolu moo ñu loo góob gar ko yéen ko góob di ngeen ko gar waaw waaw loolu ma wax ko nag nee naa tey ma continuer fi ma emoon ndémba ci suma suma TRRC bi di leen yëgal li xeppul July 22nd 1994 ñëw naa bi ci second day bi ma explainal leen ne leen you know ah, boobu lañ invite ah, diplomate si ñu ñëw ñu explainal leen ñu ñëppan fa ñu explainal leen wax leen li xew you know ñoom itam ñu wax ñu li xew waaw americans jox ñu ideas you know ñu ñu ñu toog ñu ñëpp ñu waxtaan ko ñu seet ko waaye gannaaw yi ñu ne idea bi baaxul and uh, You know, bés boobu nag sax lañ lañ form di di junta APRC bis boobu lañ ko foom ci lañ dem biñ ko foom nag nekkuma fa parce que man li ma la wax rek tay boobu maa ngi busy be ci affaire yi you know di write up this this waaye um, Momar Thiam mu ngi fa woon bañ koo foom bi ñoo foom APRC si council bi Momar Thiam mu ngi fa woon so ba pare bés boobu itam la ñoom Yankuba Touré Sam Djiba ak Denis Coker bés boobu lañ egsi from Farafenni unfortunately bi ma waxee ñoom di previous day loolu ba tey Dennis Coker ngi Dennis Coker mu nga mu nga fale naka mu nga mu nga North Carolina every day ma wax moom more ba tey soo ko ko waxee dina la ne Sam Sallim ma wax noonu dëgg la ba Touré mu ngi nii mile two naa ko bu yàggul ku ko seetee soo ko waxee dina la Sam Sallim ma wax dëgg la bés boobu lañ egg si ñoom ba Yankuba ñëw di ma wax naan bi nga taxaw di wax Sam ji ba ne nañ jaar South Bank. muy bañ ne la moom akoo ji mooy commandam maa ngi taxaw billahi ah eh, Yankuba Touré na wax na ma loolu daddee waaye man time boobu you maa ngi naan rek alhamdulilah ñaawteef amut parce que man dama foogoo ne ñaawteef dina am xeex dina am ci dëkk bi ñaawteef amut waaye itam daddee foog naa ne after meeting bi ak ak lifin bi ak lifin yi. diplomatie ci la ma ci laa dégga ne Yankuba co-op nañ ko def nañ ko member of the AFPRC ruling council waaw moom ci la nekka moo nekka mu nekka a fifth member of the AFPRC ruling council Edward sax moo ñëw ne ma man def nañ ma choose nañ ma pour ma nekka minister of uh, trade and industry te moom maa tooñ ne ah Sarr xam naa ne sa brain bi di ko mën a use foofu pour ñu industrialize dëkk bi mu tooñ ma noonu mu ñu ne mu ñu ne ma Mamat Cham moom lañ def minister of information waaye ci diggante bi ñu kool uh, biñ pare maa ngi remember xaw ma daal just before la waaye. for the first time loolu du ko fàtte mukk yéen maa ngi tase suma sister bi keroog ma ngi ko wax muy muy Fatoumata Diakhoumpa mooy the first woman in Banjul ku ñëw dugg si ci euh, coow li yépp ci ci ci South bi ñëw ndokkale si yow APRC na leen support na leen jox na leen solidarité te mu ngi leen a ñaanal toog na fa ara waayal ñu waxaan doxaantu waxtaan and you loolu yëpp bokk na ci li tranquillize situation bi moo laata dem soo bi waaye nag gannaaw gi ca ngoon sax ci lañ invite mooy kii religious leaders yi waaw religious leaders yi ci ñu egg si ci ngoon si um, ñoom imam ratib Banjul ñoom tay bu Abdoulaye Diop dem si yàlla si ñoom eh, eh, imam Latir Latir Kunda dem si yàlla si Doudou Dramé ñi ma fa ñi ma fa mun a fàttaliku benn tey imam Babali moom it ñëwoon na ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen imaam yi Bakawé waaye ñii ñoom wax ràññee naa leen ne ñu fa foog naa ne wax naa ñoom sax kii moom imaam ratib euh, bu birk euh, bu bu Latir Koudaame du Daraame moom wax naa moom parce que kooku euh, rakkaam bu jigéen moom mooy woon suma second wife fi suma papa ñu ko wax Ramatulaay Daraame mooy woon second wife suma papa. you know so kooku moom daf ma miin dañu ñu waxtaan fa briefly afterwards waaye biñ leen tëralee wax gi yépp ñoom dañ ñu dañ dañ fa wax wax bu rafet ñoom itam ñaanal ñu ne ñoom ñëpp gis nañ ne lii imam ratib du ma fàtte waxam ngi moom mooy woon mejo mooy woon main speaker bi tante moo ñu ne sax du ko fàtte mu ma ngi ko bindal ci suma bug bi li ma leen a wax nii mu ne mu ngi leen a ñaanal yéen foog naa ne yàllaa leen indi parce démba ni ngeen mun a jóge ba jël réew mi ci jàmma salaam ci ajuma ci you know bal tàkkul ci dëkk bi ganaar teewul dara teewul ngeen def ko ñun sax mu ne ñoom moom sax dem na jiite jumaa ji da ba ñibbi këram ayewu leen sax julli jumaa da mu ne kon nga xam ne yàlla egsi te you know more or daf ñu doon wax ne lii miracle la woo xam ne ñun ñëpp ndogali yàlla la te ndogali yàlla su amee ñun ñëpp ci war a ànda ne alhamdulilahi rabil alamin billahi lii la ñu imam ratib Banjul wax waaye mu ne nag laas wooda mi mu ne waaye ma ngi leen a edda itam leen wax ne mu ne yàlla ne yii maa ngi ko bindee ci sama buub bi bu ko fàtte yii yëpp mu ne yàlla ne soo leen bokkaatee ngeen def dara together because gis na ni tiim la woon di dañ leen a introduce wane leen ne Jammeh mooy woon chairman bi you know Sada ñëpp a ngi toog mu ne ñu soo leen a defati dara together ba ngeen am ko yàlla dafa ne especially affaire yi nguur mu ne loo ko def lum ñaaw ñaaw ñaaw mun na leen a seetaan soo leen bañee julli woorewut mun naa mun naa toog continuer ngeen continuer seen nguur gi. soo leen di naan sàngara di def lu ñaaw waaw bu warewut mun na leen a continuer ngeen def ci nguur gi waay li yàlla aayal mu ne mooy kii or or waaw mu ne bés boo leen orantee mu ne yàlla ne nguur googu dinaa ko daaneel soo na ngeen moytu bu leen orante billaahi lii la ñu imaam ratib wax ñaanal ñu ñun ñëpp ñu ñaanal ante foofu tasaaroo waaw daddee waaye nag euh, daddee waxoon naa leen ne ci la euh, jaame waxa Abdou Diouf itam wax gu rafet Abdou Diouf wan ko ne dinañ dimbale Jawara rek waaye ñun fii duñ fii duñ intervene waaw bëggoon nañoo intervene nag waaye Kebe bi ma waxee ne ay kilifa dem nañ mit ko lii du affaire xale yi ci lañ witro soo loolu itam sam euh, naka saafaraal na suñ problème bi da dee waaw Mama Thiam nag mënoon naa wax ni waaye dafa ñëw ci TRRC bi kon ndamoo ne moom kenn moo tasee kebe ci bëréb bi kan tasee nit ci bëréb bi da dee kan foofu dëkk bi kenn génnul di nga dafa dof kenn génnul Nigérian yi suñ commande Nigérian yi sax dañ nëbbu ji Mama Thiam foofu la nëbbu ji woon mu ngi nëbbu ji woon kër akoo ji moom moo xam bi foofu lañ nekkoon ak Baboucarr Jatta ñoom ñooñu foofu lañ nëbbu woon ba bi affaire bi seddee guy ci la ñëw State House ñoom ñëpp Kambi moom ñëwut Babacar Diatta itam ñëwut waaye Momar Thiam ci la ñëw foofu ah, maa dem waaw waaw kenn waxul ci affaire yi coup bi ku nekk ñu ñëw ne man maa def lii man maa tojoon lii you know waaye man li ma la waa rek mooy ne maa si lay konte gi ñoom nekkuñu woon si dëkk bi moom foog naa ne moom he was out of town waaye you ñëpp a nëbbu ji ak Nigerian si mu naan waa dama dem ma Kebe ci bridge bi di ko wax ne su leen attaqué Gambia 700 loolu du dëgga loolu du dëgga soo ko tegee ci lie detector test dafa fail ba tëdd ci suuf so you know why why why why you TRRC ka leen ñu wax dëgga waay sëriñ bi su leen buggee xam dëgg indi leen ñu dëggu waaye doo leen indi ñoo xam ne xamuñ dëgg tey xamuñ dëgg ëllëg ne da génnee foofu ne da ngeen a taxawal dëgg waaw da tey nag you know ci ëllëg si you know ci lañ dem foog naa ne boobu mooy dimanche dimanche mooy twenty fourth you know parce que twenty second la affaire bi euh, muy Friday te ñu am meeting na si toppatoo la ñu 24 mooy dimanche ci lañ confirm ne nag Jawara dafa ñibbi everybody du fi toogati su américain si dene ñoom mënatu mu ñoo toog ci dëkk bi you know gaa yaa ngi doon wax yi fi dof yooyu it's true américain si amoon nañ heavy enough weapons the ability amoon nañ a crack unit marine marine company boo xam ne suñ wàccoon jënguñu you know you know mun nañoo stop coup bi right away o mun nañoo am ñaawteef bu rëy ci dëkk bi waaye Amérique du ñoo opératé noonu maa ngi dégg ay dof yi doon wax naan waaw dañ yaakaaroon ne américain si mënoon nañoo def lii lu tax defuñ ko dafa mel ni dañ ci bokka Amérique du opératé noonu opérate saka soo ñëwee ci military operation dafa am sarta yiñ ko teg yu wér balaa laa jox ndigal ne la aca dugal waaw ñëw ñu ne yéen a ngi exercice rek dégg nga ne coup d'état am na ñu ne la waaw acca xeex leen jéem bi Amérique ba pare Amérique tey boobu ñu ngi mere Gambie ñu ngi mere Jawara seriously mais Jawara daf leen dafa nax àdduna si ñoom day doyaloon ci Jawara set dañ ne Jawara daf fi yàgg ci dëkk bi you know ñëw ba tàggu àdduna cinéma ngaa dem ñu coog mu ñëwaan ñëw ne wax ne gaa yi ne yàlla ne bu ma dem loolu la ko gaa yi wax imaam yi dem foofu ne ko you know bëgg nga dem waaye yàlla waxul la pour nga dem da nga war a toog mu dem mu annonce loolu BBC di ko ree cok cok def ko you know so ñëpp ko mere woon àdduna si yëpp ko woon moo tax Amérique sax suñ gisoo ne you know like munoon nañ ko mun ko dinañ xalaataat sax pour intervenir pour saydam dañ ne dañoo ne all right ko mu mu succeed this government PPP waaye PPP bi doyal nañ ci sëg because soo déggee American ambassador bi naan ñu foom leen seen kaw men ñun dinañ leen mën a sponsor you know dinañ ah, sorry non dinañ leen mën a sponsor di foom leen seen government ngeen def ca war Jawara ceremonial leader you know for six months ngeen soo loolu yëpp ñoo jox ay idea pour ne because moom daf ne suñ defee loolu dina wax Washington ne leen de d'état amul ci dëkk bi it was a misunderstanding of the government why the government is back in place and waaye you know like ñu bëri gannaaw gi dañ ne loolu óorutoon you know Amérique itam bu leen gis noonu seen interest rek lañ gis suñ gisee ne loolu jigut leen woon mënoon nañ ñoo sabote mënoon nañ ñoo def lu leen neex just to reverse their position loolu la def you dañ daan support Saddam Hussein you know ñooy gënoon naa nekk alaay Saddam Hussein bañ ko buggee fàdda dañ ko sosal fàdda ko so you know you know European see noonu colonizers yi noonu lañ mel France loolu la def waaw gisee ne yow saw seen waay nga ñu gis ne kii moom you know kii jëriñatuñu ñu sàkkal la pexe soo loolu la waaye waaye dimanche nag ci lañ consolidate everything ñu joxe press release wane ne lundi nit ñi mun nañoo dellu ci seen liggéey you know government bi change na jàmme dem jox speech bu nice speech at the radio station bi moo dem sax maa ngi remember moom moo Momad Cham ñoo ànd you know in fact Edward sax daf doon wax naa dem read speech bi since man maa ko binda billahi loolu la moom ma ne ko non jaame ne non moom dina dem read ko jaame went read speech you know waaye jaame edit na ko seriously to suit moom li mu bëggoon a wax and then he made a nice speech biñ pare you know ñun ñëpp ñu ñëw daje ñu map out nag plan on what to do so Mama Cham of course moom moo am na ñenn ñoom ñu xaw la doon àndal waaye ñoom ñëpp dañ doon wër di yëgal yëgal ñoo doon yëgal am di jàmm moom bokk na ci ñu wër sax invite yi di ñoo invite diplomate yi di ñoo invite religious leaders ak di ñoo dem pour yëgal ñuy select ci civilian yi ñooy nekk obtain ko ni mooy wane ka ma minister of finance ma la wax gaa yaa ngi ko doon support ne Jawara daf ko décret moom lañ waroon a def président bu Jawara buggee hand over you know moom dañ ko waroon a retain nag jël yeneen ñoo xam ne ñoom Bolong Sonko minister of uh, foreign affairs ñoom Amina Fall Sonko you know ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen you know ñoo xam ne dañ leen select man biñ leen a select ne ko waaye Momar Thiam moom mu fa woon biñ leen a sale pour ñu la nekk ministre mu ngi fa woon waaw and uh, foofu nag lañ nekk ñu ñu ne waaw ëllëg dinañ leen invite dinañ ñoo def swearing in ceremony bi muy you uh, ko war a def on Wednesday I think Thursday Tuesday waaye dañ leen waroon notify first. dañ leen war a notify on Monday pour wane ne select nañ leen am seen consent pour ñu ñëw pour ñu pour ñu am swearing and ceremony and everything so um, foofu lañ nekk and uh, things were going well you know and uh, man this year state house life and you know and uh, you know and I was very close to Jammeh dañ daan toog di waxtaan you know di explain mu ñu waxtaan di pass and everything ñu were very nice to each other sana sax moom ci boppam sana ñëw na ba wax na wane ne saa yow de xam naa ne soo nekkutoon ci army bi man duma nekk ci army bi because gannaaw yow yàlla yow yaa tax ma ci army bi sana saabali du ma ci nekk fii billaay walaay moom itam ñëw na fen-fen yu tooy waaye suñu tegoon ñu waaye ñu ci polygraphic test dinaa ko paas lum la wax lu dul loolu dafaa féel because ma loolooy dëgër yi waaw jaxasoo woon nañ nag trop waaye gannaaw gi ñu door di kaam you know uh, um, uh, ñu you know ñu ñu serve from Atlantic Hotel foofu lañ ñu doon serve food and then you know ñu bi door di réglé maa ngi remember nag you know ti tey mooy that Sunday or so time boobu sana saaba la ngi wexxat ci dëkk bi gannaaw gi laa digga ne mu ngi arrest mu ngi yóbbu mile two mu ngi lifin bépp toog naa benn bés ci ci fan yooyu maa ngi naan jaame I don't know li sana di def nii waaye man daal ni ma gisee ni situation bi soo leen ma buggee arrest please jox ma di opportunity ngeen ask ma parce que in fact dafa coïncide sax ne dañ toog dot faal because time boobu moom la ñoom lañ joxoon pour ñu take over Fajara Barracks ba pare ñu seen fa itam moom Tamba mooy euh, Lantombong Tamba général Tamba moom it dañ ko waxoon ne mu nekk ci ñuy jàppale ci booy lan fële euh, fële euh, Fajara Barracks you wan ko ne you know parce que jaame moom bi mu toogee rek moom itam. dafa door di xëcca nitam ñi ñu nekkoon ci TSG bi because Jammeh ci TSG bi la jógee yàggut ci army bi dafa ñëw ci army bi rek yàggut mu dem koos mu dem koos ñëw rek coup d'état bi am foog naa ne week ñëwee sax di following week la coup d'état so you know moom itam gis na ni ñu ngi ko bëgg a wóorloo ñoom gars yi ñu ngi ko wóorloo pour ñu garale ko comfortable sax ñëw mu door di xëcca nitam ñi ci la ñoom Matin alaaji Matin ñoom Pajenka ñoom musaa Diame Malia Mungu ak you know yu bëri in fact booy bi ma leen doon wax sa commande boobu Sonko bi nekkoon doon fight ne moom du du la ci bridge bi moom sax dafa bokk ci garsam yi because he was a very tough cookie that boy very tough at that time so ñoom ñu bëree bëree bëree ñëw mu soraan boppam ak gars yooyu gën a secure around them there was this ñu naan ko couple Seydi Kane kooku TSG la woon foog naa ne state guard la nekkoon kooku he was so close to Jammeh moom foog naa ne moom la defoon sa otleem ci kaw ci néegam bi waaw di ñu toggee noonu dot faal ñëw fa wax wax ñëw ne report ne Lantombong Tamba mu ngi fale mu ngi fajara soo waaye mu ngi sabote seen liggéey bi so you know mu ngee sabote, because soo waxee lii mu wax la lee soo waxee la lee mu wax la lee gars yi joxe order ne dañ ko war a arrest dañ ko war a arrest soo dañ doon xaar saabali pour wax ko ne na ko xaar saabali arresté waaye moom itam xelam màcce ko rek lan tombo lii dañ ko wax everyday mu ñëw ñëw ci place ba egsi laajte ma laajte ma ne ko kaay dugga si mu in fact man la ñëw sax wax ma ne ko kaay egsil ñu éeg dem ba ci jaama mu toog ñun ñëpp ñu toog mu explain li xew mu ne moom moom you moom biñ ko ne biñ gars yi déggasee ci state house bi bañ setul affaire bi bañ ne ko mu dem Fajara Barracks fa la dem di jàppale waaye moom lu mu def ñu ne ko bàyyil lu mu def luñ ko defal nii office la ñii ay NCO yi lañ ñoom ay dot fan ñooñu ay NCO lañ ñu takka ay rank rek def leen def li seen boppa def seen bopp ay lieutenant waaye time boobu kenn commissionnaire leen you know so waaye moom mu ngi doon coopéré ñoom yi nag yi séem a seet lañ koo éliminité ñu ñëw ne leen ñu ko boole bañ joxe order waaye ba mu ñu excel explainale ma ne jaame kii buñ ko jaame ne ma waaw kii kii liñ ko kii tàngoor ne ñëw na fi kii kenn waru koo arrest jaame ne ko nag demal nga def sa liggéey kenn du la arrest you know mu dellu keroog wax naa jaame ma ne ko ñii ni ñoo doxalee boole wante bi nekk ci dëkk bi suñ ma arrest please make sure ne nga jox ma jëlis opportunity ma ñëw waxtaan yow mu ne ma saar yow demal fële yow kana laa arrest billahi lii la ma jaamee wax dëddee te xam naa ne bokkul ci ñi ma arrest waaw loolu mun naa koo waat ci téere mun naa koo waat ci kaname polygraphe ne jaame bokkul si ñi ma arrest Sana Sabally la Edward ak Haidara ñoo togga suma arrest parce que ñun dem nañ toog foofu sax bay waxtaan di seet naka la ñoo def ba correct system in the army and one of the things yi ñu waxoon sax da dee mooy ne waaw suñ soldaar yi PPP bañ a beer si indi Gambie bi ñu demee dee Liberia dañ war a arrêté pour ñu indil leen suul leen indi Gambie bi ñu ne suñ suñ suñ suñ setulee def loolu. mu ne ma yow saa sa xam na ne yow yaay war a dem pour jëliñ dead bodies yooyu ma ne ko am ready to do it you ñu waxtaan loolu and uh, affaire bi ne ñooy ca ëllëg sa muy lundi ñu dem you know gars yëpp ñëw liggéey si ba pare in fact ca ngoon sa sax booy yi dañ def fat naka fitik lañ ko dee wax ci armée bi clean up the whole place parce Uh, state house time bu clean a nekk wa fu nekkaa ngi tilimoon because of mu ngi taw you know xob garab yi yëpp a ngi sotteeku foofu soo dañ de mobilise booy yi ñëw clean ko start fom ba foofu yëpp gars yi ñëw dugga si nit ñi liggéey si keroog dem naa office bun jaag ma ne ko bon lii laa leen doon wax you know ah, waaw waaw waaw yow xam nga rek saa nañ fàttali affaire yu ne alhamdulilah keroog itam gis naa Um, permanent secrétaire bi ma yóbbu woon office am di ma saaga naan ma ñun indi ñu ngi indi ay Nigerian ak ay ay ay Nigerian colonel ak général pour ñu advice ñu yow capitaine nga rek soo amee sa advice nga dugal ko ci sa poche soxlawuñ ko yooyu yëpp gis naa waajooju keroog you know so ci diggante bi man you that day sax mooy that gars yi dem ne ñu ngi yëgal ne gars am nañ press conference boo xam ne sama nekkuma fa woon ci press conference bi afterwards laa dem ci office yi ministry of trade and industry pour familiarize myself with the place there fekk na fa permanent secretary yu I can remember still ne Mr Jagne la tudda Mr Jagne gars introduce ñu time boobu jabari Momodou Badji kii naka la turaati euh, mooy foos jabaram bi dama fàtte turam you know waaye sax moom du woon liggéey ci ministre bi moom moom a xaamee ñu welcome ñu am ñu xaade brief meeting you know so di following day war a nag swearing in ceremony waa bés boobu laa ñëw am usually bare because foofu you know jaami time boobu daf day génn a toog ci dafa mel ni corridor waaye it was like naka la tuddaati relaxing room la daal mu am toog yu nice noonu so su génnee nii rek dafaa ñëw foofu toog foofu foofu la dee toog so ma egg si ma fekk fa Seydi Kane moom kenn a ngi toog you know and uh, you know mu ngi lu very funny ne ko ah ana saawaay mu ne ma jógagul ma xool time bi muy eight o'clock su ma six sense mu ne ma something is fundamentally wrong jaame du tëdda be waxtu bi at this time no ma ne waaw ma continuer ci the same corridor because the next room foofu la mama caam nekkoon on the left the next room am na beneen room on the right and am na beneen nga dem further down mooy second room yi saa daawda bi foofu ñu ne xaw ma leni njéemi foofu la nekkoon foofu itam sana saabari ak xaydara néeg boobu leen jëloon so ma ñëw ma génnee ci corridor bi rek ma tasee Edward ma ne ko waaw Edu ah, maa ngi laajte ñu ne saa waay ah, jógagut waaye you know muudam bi daal si didn't show a very happy face ma ne ma ne ko waaw ah, maa ngi ñu ngi doon waxtaan nañ démb affaire yi this Liberia man xam naa ne soon after this you know man dina dina dina dem Liberia ma dem recover ji dead bodies si soldat yi mu ne ma ah waaye capitaine Sarr danga war a xam ne loolu du suñ priorité am nañ more important things to talk about loolu fi mu jógee xaw ma fan la wax ku ma beeta because as much as na ñun ñëpp we are operating from the same frequency mu ñëw wax kàddu googu ma ne waaw something is not right fii kii li moo wax nii rightul ma dem passé ko a gis capitaine Cham mu ngi toog mu ngi waxtaan ak mu ngee waxtaan ak kii naka mu ngee waxa sonk sonko time boobu bolong sonko egsi na so ma dugal laaj ko ma laaj capitaine Thiam ma ne ko kaay ma gis la mu ñëw ma ne ko waa lu xew démba parce que man maa ngi gis ne Jammeh jógagut maa ngi tase Edward mu ngi look like yi ne ma ne ko there is something not right mu ne ma non non non you ñii mu ne démba dafa tëdda bee guddi mu ne ma dama tëdda bee guddi Edward ee eh, ma fi ba suma ruum bi ne foofu ruumam la ñoom ñooy junta members naa génn ma uti fu ma fanaan ma ne ko waaw kon kon ma ne ko capitaine Kane something is not right mu ne ma non ah, non waaye it's all right man dama bugg a brief ñii puisque tey la su suweere ma ne ko waaye lii is not right so you know ma ne ko loo ko wax mu ne ma waa dama jóg rek dem dem ci beneen room bi mooy room bi ma ko fekka ma continuer dem fekk ci ñoom sana saabali ma dugg a fekk sana ak xaydara ñu ngi toog ma egg si leen good morning you know rek ñu ne ma good morning ñoom ñaar ñoom ñu jóg rek romb ma quick romba wàcca ma dellu suwaat ci caam ma ne ko caam ah man daal xaw ma luy xew de waaye there is something not right about what is going on mu ne ma ah du dara ma ne ko seriously mu ne ma yee ni ma ko waxee ni lu dara rek benn officer benn soldat ñëw ne ma capitaine sa sànni ne daf la bëgg gis na nga ñëw downstairs ma ne waaw you know ma ne oh, ok bi ma step rek mu ne mu ne ak yooyu tam mama Thiam capitaine Thiam soo ñu ñaar ñëpp ñu wàcca fekk sana ci suur sana benn tey dafa mel ni du ma rus mu ngi sëga mu ne ma saa dañ la bugg a yóbbu dafa am lu ñu laa wan ma ne ko ooyee mu ne ma waa ma dugal ci suma moto bi ma dugg ci motoom bi ma mama caam dem dugg ci moto Haydara bi bi ñoo génn State House rek ma gis. docteur Ndiaye ngee dugg si mu ngee uniforme parce que time boobu ñu ngee discourse itam ne dañu war a def docteur Ndiaye minister of health you know rek ma dégg ne waaw ma gis van bi stop moto bi stop ñu ne let him come to docteur Ndiaye ñu dugal ko ci moto bi so man gis naa convoy bi ñu ngee daw maa ngi naan waaw where are we to going <laughs> you ñu génna dem Independence Drive di move outside Banjul ma ne waaw xanaa dañoo dem yundum barracks I don't even know what's going on dem mile two ñu koof duga mile two ñu ubbi bunta bi sana saabali wàcca si to say that we have another we have orders here ma wàcca ma ne what is going on sana ne ma saa you are under arrest ma ol ba teku xool boy si ñëpp point seen AK 47 yi ci suma boppa bi du ma ko fàtte ñi leen toppa yëpp fiis bi ma fa fàtteleku ba débama tey du ma ko faté mooy alpha ba alpha ba du ma ko fàtte AK-47 bi daf ko ko point straight in my face saa you are under arrest ma what have I done ñu ne ma you are just under arrest you know yóbbu ma confinement ma taxaw ma ne ko sana you know I don't know what I have done I haven't done anything to deserve this waaye soo demee please make sure you inform my family ne you brought me here foofu lañ ma bàyyi léegi nag dinaa leen wax suñ suma suma imprisonment ne leen bés boobu la start waaw and uh, li xew dem september 6 li xew ak ba ba ba maa génn dellusiwaat waaw parce que canal gi déggoon naa ne suma yaay suma yaay ne sendoon dama message ne gars yi dañ ñëw di ko saaga ca kër ga sax ne ko dégg nañ ne man jàmme dafa ma def ministre may ko jéem a coup d'état mu jàppama ma jaama try dama ko doon feteel mu suppale ko melentaan you know bi mu ñu jàppama yóbbu ma tëj ma suma yaay ñëpp traumatise waaye suma yaay xam na ma mu ne leen saam du façon yi nit kooku Sirif Sarr ki ma xam Sirif lañ ma day woowee Sirif Sarr ki ma xam du def façon nit kooku you know kooku do stupité wul noonu waaye ñoom ñëpp ñu muñ moo tax biñ ma génnee def ma député ami commanda <laughs> may wër ci dëkk bi di leen wan ne leen hey musumaa def dara ku la bëgg a coup d'état doo ko def député ami commanda waaye loolu dinaa ci ñëw naa ko emale fii thank you very much the next time bye bye.